d' abord euh, maa ngi nuyu ñëpp euh, di remercier aussi ñëpp di remercier aussi toute la population de Dieuppeul Derklé Castors et les membres des GSE qui sont là présents et les membres de Benno Bokk Yaakaar aussi qui ont apporté leur soutien ci mbir mii nii lépp maa ngi remercier ñëpp di remercier aussi le directeur général Ababacar Sadie Bey voilà si taxawaay bi mu taxaw lépp jërë ngeen jëf. bon léegi nag euh, li ko waral mooy plainte bi dama xëy rek ñu woo ma defal ma plainte dama dafa am ay données yoo xam ne dama ko transféré. génnee ko si euh, place publique bi bon plainte bi ma ñëwee si léegi policier bi bu ma woowee ne ma ma ne ko ah kii ma plant man xaw ma ko ci aadama ak awa musuma ko gis tey laa koy door a gis mu ne ma léegi données yi ñu transfert ma ne ko man xaw ma lii fu mu ko fu fu ma ko jëlee moom fu ma ko jëlee daal mooy ci group laa ko fekk comme ñu ñëpp gisee si groupe bi lañ ko fekkee mooy diggante waxtaan bu mu doon waxtaan ak ak Cheikh Gueye ci wàllum transfert électeurs yeeg nangam ak nangam ma ne ko loolu daal la ñu gis te loolu la ñu la ñu jël si groupe bi ñu waxtaanee ko jeex na mais defuñu si leneen lu ñaaw wala leneen lu bon aussi wasalaam mu ne ma ah madame léegi looy wax mu ne ko ah man dama bëgg a xam source bi fan lañ ko jëlee ñoom ma ne ko nag ñun source bi boo koy xool mu ne ma naa ah, ma ne ko da ngay xool fi nga ko waxtaanee mu ne ma non moom ci panel la ko waxtaanee ma ko dangay xool kon seen panel parce que seen panel moo am fu képp bu fa nekk ngeen jéem ko xool mais du ñun ñoo lay wax kan mooy sa tóob ñun xamuñu kuy sa tóob wax dëgg fa yàlla loolu la loolu si loolu la woon donc bon ma xam ne femme bi aussi euh, plainte bi n'a rien compris sax dañ ko utiliser loo ko plainte te wax dëgg fa yàlla ki ko def loo ko plainte je crois que waroon na mën a jël ay responsabilité moom comprendre nga nekk un lâche nekk derrière une femme pour jéem a def une plainte envers des gens bu di indi di euh, sonal nit ñi si gauche wala droite donc su ça on appelle à toute la population de Dieuppeul Derklé Castors pour le montrer le visage du maire aujourd'hui qui est là, qui est euh, Cheikh comment il procède à faire des complots contre des gens de gauche à droite. C'est peine perdue. Et franchement, euh, nous allons le déboulonner de ce mairie-là, Inch'Allah, le janvier. la police décidé. waaw police dafa décidé daal ñu waxtaan juboo entre ñu ak femme bi y' a aucun problème femme bi aussi nekk une femme maman boo xam ne nii wax dëgg fa yàlla nit ku nit ku baax simple. wax ci Babacar aussi diggante ak magam la tout koñ bi ñu dëkk ak tout ça wax ju wax ju rafet donc sur ça daal jàmm am na fa wasalaam. sant na ni yëf yi jeex na. jeex na tàkk ndox bu sedd am na ci donc kii yaa ki bëggoon lu bon am ci aussi du ko ci gisit waaw yàlla def na ci ndox bu sedd guy aussi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen jaajëfal waaye nuyo bi maa ngi koy teg di ko jiite ci nga xam ne mooy suñu kilifa. di Ababacar Sadikh Bey le coordonnateur de l'APR Dieuppeul Derklé nekkaat le président du mouvement Génération Sénégal Émergent ñun ñuy njabootam teew fii tey nekk en face commissariat Dieuppeul Derklé ci suñu benn naataango di suñu xarit boo xam ne je veux nommer Guiro ñu joxoon ko convocation woo ko fii ci commissariat bi ñu àndoon nag moom gunga si ko mu bokk ci ñun nekk ci njaboot goo xam ne njaboot gi duñu tooñ ndax ni ñu yare la waaye buñ ko woowee ñu bokk ak moom ànd ak moom ñëw fii wuy si woon tey alhamdulilahi rabil alamin lañ ñu wooyee woon jàmm am na ci ndax ñun duñu dox lu dul ci jàmm ki nga xam ne it moo ko fi woolu woon muy sunu jigéen di sunu sœur ñu xam ko muy nit ku baax kon différence amoon waaye delluwaat na fa mu war a dellu ndax kenn xajul ci diggante bi ndax doomi gox bi lañu li waral wax ji nag mooy dafa am xëy na ay données yoo xam ne dañ ne dafa génn waaye ki nga xam ne par exemple man moom lay njëkk a waxal bu ko neexee bu subaa na ma convoqué mooy le maire nekk suñu kilifa di moom Cheikh Gueye ñu dénk ko commune bi nay seet lii rafet mu koy wax ndax mën a dajale njaboot gi ndax bu fekkee ne plainte rek la ñuy déposé moom ci jëmmi boppam na mu def chauffeur bi keroog bu nekkoon chauffeur bi mu plainte ko ndax loolu mën nañ ko woowee agression ndax fekk nit. nangam di nangu saag bi di ubbi te ñëpp dégg nañ ko parce que am nañu vidéo yi ci wax yooyu nga xam ne muy ay saaga ci kilifa ngay saaga saagay ndey ñëpp di ko dégg loolu kenn rafetluwu ko waaye li ñu mën a wax daal mooy li ñu fi indi woon mooy am lu mu doon bañ ndax moom Cheikh di la maire attaque bi nga xam ne moom la defoon ci chauffeur boobu moo doon transfert de vote yàlla def li nga xam ne mënu fi indi ñu naan dañ ko weer ci biti loolu privé la mais yëfu privé bu demee ba dem ci domaine public génn loolu mën naa weeru looloo tax ñu jot ci keneen jot ci mu doon discussion boo xam ne moom moo doon entre moom le maire ak ki nga xam ne mooy sunu jigéen ji nga xam ne moo fi woowoon tey sunu naataango bi di sunu xarit discussion boobu moo doon affaire transfert lañ ci doon wax ci ne sama càmmiñ la kii ne sama jigéen la kii ne ko foo ci toll mu ne ko lijjantil naa la ko kon moom day jiiñ nit ñi dëmm ñu bett ko muy seeñoo yéer liir wax jépp lii la nan ko wax de dee na ko nit ñi xam commune bi xam ko askan wi xam ko li muy génn di wax lu ko raw lay def ci suuf ndax loolu dong moo waral yëf yi la nga xam ne moom lay wax daal muy transfert yi mu koy ngantu di ko wax di attaqué ci nit ñi ci loolu la discussion ba génn ñu gis ko xam ne moom ci loolu lay dox guddi ak bëccëg kon ñu dellowaat xel yi te xam ne dara yàggatul jot na ci kàttanu suñ borom danañ ko woon ni nu mënee ànd ci ak suñu kilifa kon jarul ñuy ruube kenn di jaxase kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi